dañoo convié woon presse bi tey pour waxtaan euh, situation bi xew chambre de commerce de Dakar depuis 14 ans ay nit ña fa toog ne acteur économique lañu te ay acteur économique yoo xamante ni tey amul dara lu ñuy jëriñ état du Sénégal te tey fukki at ak ñeent ña nga fa toog renouvellement yoo xam ne chambre de commerce juróomi at bu ne war na am changement nit ñi dem nañ dem ci ay jongante li chambre de commerce bu Dakar moom tey la def fukki at ak ñeent ña fa toog ña nga fa toog bougé wuñu toog bañ fa toog nag toog bu jaaduwul la ndaxte cour d'appel bu Dakar ci li ñuy wax chambre nii mooy magistrat yi ñëpp euh, daje bañ mat 53 daje nañu pour wax ne chambre de commerce dafa ne du yoon lañ fa waroon annuler ci ay bureau annuler nañ ko moy bureau bi ñëkkal ne moy bureau bi Ablaye Sow mi nekk tay section quand même agriculture mom lañ ñëkk annulé sous section bi mu annulé waat benen sous section bu ñu wax établissement financier bu Ibrahim Lo buy naa ko ne ñu demati cour suprême ñu annulé sous section man bi ma ne muy haute entreprise de service annulé industrie de production et de transformation annulée. beneen sous-section établissement financier donc tey une sous-section qui est annulée. justice annulé na ko te annulé ba ministre du commerce et du jaar yépp d'aller ko ci Alioune Sarr Aminata Assome euh, ministre Niang bi fi dossier Amadou amul kenn koo xam ne ñëw na exécuter décision de justice yooyu ñu bàyyi ñeen fa bàyyi ñu toog fii ba tey te loolu tey dafa am problème yi muy jural acteur économie parce que tey ku xam njëriñ bi chambre de commerce di indil ci réew mi parce que moom mooy bureau bi nga xamante ni acteur économique boo gis euh, commerçant boo gis mu am problème bu laajee ñu ñu ñu saafara ko ca chambre de commerce war am na ci am na ci pàcc bu mag boo xam ne war na ko mën a régler te tey nag boo gisee ne tey fukki at ak ñeent chambre que ña nga fa toog ña nga fa toog ba tey président ba fa tey ni toog nii tey ma nga fa fanweeri at ak juróom-ñeent 39 ans ma nga fa toog mel ni moom chambre de commerce rek la xam te ma nga fa toog toog boo xam ne amul njëriñ bu mu mën a indil chambre de commerce du ci côté xam-xam du côté jàng du ci côté da amul daal lu mën a indi chambre de commerce su dul toog fa te li gën a garaaw toog fa tamit yor budget boo xamante ni. du bu mat 3 milliards boo xam mu ngi koy gérer te amul dara loo xamante ni war na ko cee mën a def su dul naka su dul noonu wala def ay dépenses yoo xamante ni budget de fonctionnement boo xam ne lépp loo xam ne ni xaalis boobu waroon na ko mën a régler def na ko ci ay fonctionnement mu doon ay situation ñu yéeme moo tax ñun bi ñu bi ñu toogee fan yi ci gouvernement président Bassir Diomaye Faye ak premier ministre am li njëkk a def mooy. li président Macky Sall mosuloon a nangu muy exécuter décision de justice yooyu ñun tey saisir nañ autorité yi président de la République premier ministre pour décision de justice yi ñu exécuter ko. parce que décision de justice yoo xam ne fukki at ak ñeent tey kenn exécuté wu exécuté wu ko mu ñu indil ñun ñu nekk secteur privé problème yu yu yu yu doy waar. tey dëkk bi bu fekkee tey liggéey bi ñu wax secteur privé moom moo ñu war tey mooy ñun ñuy créer ay emploi di créer koom ci réew mi. situation ni mu demee tay ñun mënuñu ko def tay secteur privé ndimbal bu mu wara a indil état bi pour mën di wut ay saafara wutal xalé yi xey wutal euh, commerçant yi def leen ci condition yu baax ñun mënuñu ko def parce que amuñu cadre bi amuñu cadre bi té nak sous région bi tay dëkk yi ñu xam yëpp ña ngay dem bàyyi ñu ñun Sénégal man mii membre chambre consulaire bu UMOA la maa ngi wër sous région bi suba ngoon waaye saa bu ma ñëwaatee wàcc avion ruus laay ñëw ba ba may dugg suma kër parce que gis naa ni réew yëpp a ngi dem ñun demuñu te loolu dafa doon loo xam ne dañ ko war a saafara saafara bi nag mooy ñi xam secteur privé war a mën a jàppale état bi mënuñu ko def parce que cadre institutionnel secteur privé comme li ma leen wax ku mel ni Ablaye Sow nekk fa te waru faa ni élection bam amé problème ci ay ay ay fausse procuration bam indi problème cour d'appel sous section ba né mom moom lañ njëkk annulé muy agriculture heure bi war na fekk mu tok kërëm parce que tay fuk ñeen euh, fanweeri at ak juróom-ñeent mu ngi tok chambre de commerce té amul dara lu mu indi chambre de commerce té tay bo dem ba chambre de ñu né amna budget bu ma 3 milliards té tay trésorier chambre de commerce mënul bind sax turam lolu problème la motax tay li ñëk def moy wax gouvernement bu bees bi donc leen décision de justice yi nga xamante le 23 avril bii lañ dem cour suprême ñu génneel ñu arrêt yi visé ñu ko ñu dem cour d'appel ñu defal ñu li formule exécutoire moi arrêt yi dañ ko exécuter Amour, kenn est ci mën a euh, indi gàllankoor su dul exécuter Et bu exécuter ko moi Ablaye sur votre équipe ya fa ne yëpp ñu génn ci saasi te génn bi nag warul doon génn boo xam ne ñëw parce qu'il faut tamit ñu yónnee fa mission de contrôle.

en attendant ñu exécuter décision de justice yi ba dàq équipe yi fa nekk yépp indi ñu délégation spéciale bu leen neexee ñu fa ay commissaires aux enquêtes économiques bu leen neexee ñu civil fa ay administrateurs civils xam fay en attendant ñu liggéeyatu ko la fa xew parce que l'état euh, un état des lieux xool lu xew chambre de commerce dafa war fii ñu